alors doyen damay ñëw ci yow d'après démb juge bi mu ngi wax ni que léegi Ousmane Sonko radiation bi annulé nañ ko ana ban jàngat nga ci am. waaw hum, je crois bien que um, le juge pour man euh, dafa lire le droit euh, dire le droit rendre le droit si nous ko xalaatee avec objectivité et pertinence sukkandiku si li nga xamné ne euh, moo jëm ci interprétation texte yi. Euh, bokk na ci code électoral bi ci bir amna article bu naan euh, képp ki nga xam ne dañ la jox acte de radiation dañoo def acte de radiation bu la soxal boo jotul acte de notification sauf décès bien sûr euh, da nga maam loolu dafay daal di dafay daal di nul euh, si nuñ ko defee ak li nga xam ne moo soxal dossier yi nga xam ne moo moo moo jëm si Ousmane Sonko ñu xam ni pratiquement tous les dossiers concernant Ousmane Sonko sont pendants devant la justice

Nous bari wax nañu lool ci seen walu xam-xam lay lay lay encore une fois pour ne pas dire que man maa donc damay andi rapporter wax ñi nga xamni ni seen xam-xam ci walu droit le match nous, ñu di ay professeur nek ci université xamé wuñu len benn coloration politique maintenant de ce point de vue globalement euh, pratiquement devons faire un tout petit peu un vox populi avant juge bi di wax tu euh, aurais constaté peut-être que le pessimisme habitait déjà la majorité des citoyens qui observaient la justice en attendant de voir l'aller gagner comme décision si de bi mais par surprise par extraordinaire et ça ne devrait même pas être une surprise on ne devrait même pas user de la terminologie par extraordinaire dès l'instant que nous juge dès qu'on est, Raniel, gëstul gisalal sa bop ba ne li momo doy mom lay Walo, verdict C'est le monde qui parce que les textes sont clairs le magistrat n'est soumis qu'à l'autorité de la loi maintenant juge bi waxna que ni acte radiation boobu nonou dëppoowul ak yone waxna euh, Ousmane Sonko c'est liste électorale yi defe interprétation buñ ci bëgg def en réalité participer à l'affaiblissement de la justice mais également participer à ce que képp kuy juge ñu bañati la jox gëdd buñ ñu nak ba avocat ou état parce que l'agent, qui nga xam agent judiciaire de l'état cadre il fa yëkëti ak nu ko mënd doxlé c'est tout à fait normal c'est l'agent judiciaire de l'état il a le droit et le devoir de protéger, je dis bien de protéger à tout point de vue les intérêts de l'État. Donc, mon, les li nga comme prof pour mener un am victoire par rapport à li et ko mission de il va en user s'il faut il faut il va en abuser Donc... la maintenant nag avocat bi si l'avocat... ak dans la galaxie du pouvoir si ñu wëlbatikoo L'humour rendre comme décision c'est une décision partielle sous le prétexte je dis bien sous le prétexte et j'insiste sur le prétexte fallacieux que ni avons, euh, soi-disant adjoint au maire de Ziguinchor de fait, ni effectivement fait le plus tard. parce que itam dans l'affaire Mame le juge bi njëkk a une décision gis nga ni responsable beaucoup de ci biir APR ak Benno ñoo ñoo bind ñoo yëkkati kàddu ñoo ngagn ne juge bobu en réalité euh, dañ koy ni nga fa nga pastef nañu sax c'est un pastefien pur et dur nous des bay yegg ci débat bo xamné dañu juge bi fi la far juge bee fait la far juge en may récemment juge bu rendre ab décision décision bo xamné nous ak waro ak euh, interro Ousmane Sonko mais juge rakam moi, secrétaire secrétaire général ministère de la justice là, si l'union si lu ñeen ñi andi wëlbati ko ñoom ñaar ñu jege lool ba bokk ak ki nga xam ni moom la ñuy euh, sëñ bi si la euh, tey kooku tam dañoo wax ni dafa jege lool le coup présidentiel comp donc autant de supputation à mon avis participe à affaiblir la justice bi nga xam ne dañ ko war jox cër dañ ko war a dans ce pays là encore une fois dafa avons magistrat intègre avons dit que, dañuy avons seen bureau comme ma koy yàgg di waxee dugg si que am ne ni ñoom bari nañu que Sénégal ni am ay Sénégal xam ni dañoo war dox di siggi seen doom dox di kon effectivement boo leen bëggee euh, dañu le la kii le que la far kii jege en réalité ça fausse le débat il faut quand même que l'on puisse nous dire une chose, la justice est le dernier rempart de la démocratie. Si elle, elle est affaiblie, elle a toutes les chances de s'affaisser. Et de ce point de vue, le ñu génne lu bari mën Safanok Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu dañ ko daan si wàllu yoon te Yon daan ko moom ak ñi mu andal dañ ko war a nangu bu fekkee c'est may na ñu palier madame lu ñuy def appel mbaa ñu def en cassation ñu daal di koy bu fekké ne yoon dafa jox deug Ousmane Sonko ni mu jakarlo itam dañ ko wara ndongu parce que encore une fois yoon mo len mo le ko jox deug bu fekké amna benen beneen palier voir en cassation ñu daal di dem li nga xamone pour voir en cassation mais dans ce pays en réalité le débat yi en fait le débat il est de caniveau nga bal ma ci bi le débat il est de caniveau parce qu'il y a des déchirures profondes des déchirures profondes yo xamna ne laal tous les segments de la société gis nga le débat si wàllu politique le débat pouvoir Sonko Macky Sonko beno, Pastef Pastef opposition Demna na ba yegg ci ay collègues dootuñu tuddante dem na ba ay grand place tasna. Demna na ba ay jëkkër ak jabar dañuy ci potante Demna na ba ay xarit yo xam ñoo doon and di déggo di waxtaan xaajaloo nañu je pense qu'il faut quand même à un moment donné s'armer de son aiguille et de son fil pour véritablement commencer à ñëw diggante yi l'adoption d'un autre type de discours pour xamné ne day institution parce que institution li nga dañ ko tabax modi té citoyen bi bu daw donc il faut quand même que l'on ñu bañ bañ parce que gis n'est ay une yo sax nañu photo euh, ki agent judiciaire de l'État mon qui mais def li di rôle lan lay def leneen day taxaw nan ko Sonko yaa wala radiation bi mom sa non il fera tout pour que l'acte véritablement nous voir que maintenant il a fait son rôle maintenant les avocats également ont fait ont fait leur rôle mais je pense qu'à un moment donné dañu war di interpréter en usant du droit en usant du langage du droit le juge bi def le juge bo wax ak na defé waye bo duggé rek si ab jiñaate defe nak da fay yomb parce que deuxième juge bi condamné Sonko dans l'affaire Mame Mbaye Niang waa Pastef bu len neexoon né ñom xam nañu juge bobu ni APR la bok wala djégué né président wala couple présidentiel xaritam ministre bé la tuumaal ko sosal ko opinion une bonne part de l'opinion donc je pense qu'il faut quand même que l'on puisse revenir retourner à une forme d'orthodoxie dans l'interprétation des faits par rapport à ce que xam ne mooy est-ce que annulation ou radiation li jëm ci Ousmane Sonko c'est possible yóbbu ko Cour suprême. non am interprétation à deux niveaux gis si nous xam xam-xam na ci ni sabou juge bi nga président bi nga xamné mo tribunal de grande instance de Ziguinchor guenné li nga xamou di décision dans cette affaire là c'est automatique té il y a pas possibilité que nous koy ñu def ñu def pourvoi en cassation gis na itam deug na avocat bi nga xamné si avocat état la wax ñii ñom ko songu en cassation maintenant bon l'un dans l'autre on attendra de voir une am lisibilité une a gëstu mbir momu mais pour le moment les li ñuy japp dit euh si mbir mi Sonko mo ci am ndam mm. juge bi mom la jox donc conséquence directe bi il reste électeur et quand on reste électeur on est on n'est pas encore exclu de la course mm. en direction de la présidentielle mm. te buñ la si liste qui euh course bi tay conséquence directe bi mandataire des Ayib l'honorable député Ayib dafé mën na dem légui direction générale des élections ñu dal di koy jox parrainage yi ñu parce que tamit je pense que côté en fait man si sama wal bopp si sama interprétation dama nan en réalité dañoo tout, ba dañoo meloon ni verser dans un certain abus parce que l'administration ne doit pas se substituer à la justice dès lors que l'administration ne saurait se substituer à la justice mais ma foi par des fois dañuy baye yone mu def li nga xam modi nak euh mom de parrainage les nak mën na dem des fiche de parrainage mais l'un dans l'autre dans une observation beaucoup beaucoup plus globale ñom dal nañu denc nañu DANK FANALAN, mm. wa ñom nañu dank fanalan dank fanalan bi nak moy nañu nous ñom préparer sen plan B il peut incarner une certaine forme d'alternative en lieu place de Sonko parce que l'État par exemple, mm. il se donnera tous les moyens pour un monde, ni Sonko ni donner candidat donc c'est le jeu politique qui l'impose mais le jeu politique quel que soit par ailleurs le contexte et la situation si les monde imposent il faudra quand même qu'on se dise une chose qui est essentielle seul le peuple est souverain mm. seul le peuple est souverain politiciens ñi ngi bërti bërti teum teum tamante demanté gojjante bajante mais le peuple décide au matin du 25 février 2024 inshallah c'est vous c'est eux c'est nous ñoy daagu nank si bureau centre de vote yi ku ñu neex ko il faut quand même ñom ñuy fatali loolu et que les sénégalais ne sont pas dupes que les sénégalais ñoo gëna avancer avancé euh, acteurs politiques mm. parce que acteurs politiques lu si bari booy xool seen comportement nga xool comportement sénégalais yi si seen waxtaan si seen jëflante nga xam ni kon boog sénégalais yi ñoo gën a sax mature ñu bari ñu nekk si acteur politiques yi. parce que pour ñoom en réalité euh, ñun ay gone lañu. yoo xam ne dañuy toog ñu ñuy léebal ah, di ñu defal ay compte ah di ñu di ñu di ñu naxtaan pour foog ni en réalité euh, ñun daal dañoo on on nous a on nous enfermé. C'est ben caca où on est obligé de, porter des œillères et de ne regarder que dans une simple dans une seule direction. Je pense que à ce niveau quand même il faut que Gaïdi fasse le D'accord.